yaakaar naa ne service yi li ñuy wax yëpp dégg nañ ko buñ jàppee li ci kenn ku nekk wax normalement dina am amélioration par rapport ak daaw parce que service bu ci nekk jël na engagement def yées li mu defoon daaw am na ci ñu gën a précis wax li ñuy def ci wàllu wér yaram ci wàllu euh, am na ci quelque points yu am en suspens mais yaakaar naa ne peut-être fii ak le booba dinañ ko mën a régler muy problème branchement wu maison des hôtes ci réseau ONAS toilette mobile yu ñu soxla pour yokk ci li mairie bi joxe a euh, aussi yaakaar naa dañ ci mën a trouver solution il faut peut-être même au-delà de euh, c'est vrai ville bi ville bi dana joxe mais peut-être il faut aussi qu'on sollicite la mairie à mon avis de de euh, plus maintenant l'ONAS fekkee mën na ONAS mën na joxe vingt yi à amul problème satisfait totale total SDE c'est normal parce que c'est l'ancien patron. Hydraulique également, tout ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. am nañu yaakaar daal que ne wàllu sécurité aussi wax nañ ci bon wàllu bâche bi tamit bu neexee yàlla dinañ ci dinañ ci taxaw donc pour que ngeen mën un am bâche bu yaatu j'espère que dage bi donne une trouver solution par rapport la préoccupation bi ñu donc bu ngeen jokkoo ak moom ci offre yi nga xam dinañ ko am euh, mu des maintenant. pour bâche yi nekk ci Iba Mar aussi dinaa contacter bu mu génnee rek euh, chef d'état-major xool ndax armée am na ay tentes puisque moo leen joxoon ay tentes foofu fekkee am na ay tentes nga xam ni dangeen ko mën a yóbbu foofu pour gan yi nga xam ne ñëw kon lépp daal yaakaar na ne bu fekkente ne kenn ku nekk ci ñun wax na def na li mu wax am nañu yaakaar ne bu dimanche jotee le 28 du ñu am benn récumé délégation ci ci cérémonie bi tey ñaan yàlla mu yegg jàmm